salaam salaam les chers téléspectateurs de la 7TV télé bi ñu nuru ba noppi di ñu dajale mbégte lay doon ak bànneex comme ni ñu koy defee tous les mardis à de seen émission bi di xew-xew nga xam fii nga xamante ne moo fi la xew-xew bi am muy Liberté 6 li jigéen boo xamante ne ni amoon na fanweeri at yàlla doon def muy mucc bi muy mucc nag ñàkk bakkanam waaye coow li si nekk moom moo bëri moo waral tax tey ñu fas yéene ñëw ànd ak xamante ne mooy cas doomu njaay mi am fanweeri at doon am doom doom ji yàlla def moom si boppam mu mujj ñàkk bakkanam ñu fa yéene ànd ak borom këram bi nga xam ne moom moom lay fi metti ba nga xamante ne mu indi ko émission xew-xew Mamadou ñu ngi lay nuyu. sant bu baax a baax sa maa ngi nuyu Sénégalais yëpp man la Mamadou Balde Mbacke Ndiaye moo nekkoon sama soxna nekkoon jigéen bu baax dafa génne àdduna depuis le 4 mars fii ci benn hôpital fii Dakar jaruma tudd hôpital bi comme woo naa sànq sama avocat. mu ne c'est pas la peine ma tudd hôpital bi dossier bi mu ngi tribunal depuis le 4 mars ba léegi maa ngi daw waaw soxna si dafa nekkoon jigéen mu wérul dafa ëmboon di dem def visite ci hôpital boobu musul dem beneen hôpital demoon na foofu visite am defoon na foofu analyse yëpp ay écho am yëpp mu ngi fi amal keroog dafa jógee fii pour dem am doom bu muy faatu nag faatuwaa na ay gaañu gaañu parce que bopp bi ak kanam bi yëpp dafa tojoon ba gémmiñ bi dafa toj. waaw loolu moo waroon ma porté plainte yi ba léegi nii maa ngi daw comme affaire tribunal mu ngi ci tribunal foofu côté boobu tamit du ma ci sori comme balaa may ñëw woo naa sama avocat mun ma ci affaire eh, foofu waru ngay sori foofu wante hôpital bi moom foofu moom mun naa ci mun naa ci léegi Mamadou sa soxna dafa amoon dafa woon noonu lor waroon am doom yow bi muy ami doom fi la la fekk wala fekku la. xam nga yàlla dugal na ñaari soxna laa yoroon sama awa mu ngi jam ñaa dugal pol moom fii moo nekkoon néegam. Liberté 6 fii paa bi ma lu wekkee gisaam kooku mu ngi ñëw vraiment yàgg nañu fii sama jabar ku nit ku baax la woon mosul ama fi ak kenn problème wax dëgg yàlla moom. parce que man fi may liggéey Liberté 6 fii laay liggéey fi may liggéey par 15 jours lay am repos su ma amee repos ma dem ci awa bi vendredi ma fanaan foofu samedi ma fanaan foofu dimanche su ma xëyee damay ñëw. su may su ma jógee jam naa fii laay jaar jox ko xaalis dépensé ma ma dem liggéey comme dimanche su may liggéey su ma wàccee ma ñëw fekk ko fii léegi jour vendredi mu nekk le 3 mars parce que après bi mu bi mu demoo bi mu mujjee def eh, dernier écho am sage-femme bi da ko xamal yow mënoo am doom normal parce que sa doom bi nu mu tëddee baaxul mu ñëw waxuma ko wax ko ay mbokkam jigéen yëpp jour mercredi jeudi vendredi laa waroon dem ci aawa bi keroog bi may dem ay 21 heures laa jógee fu may liggéey ma fekk ko fii moom e rakkam bu jigéen ñoom ñaar ñoo bokk ndee bay faatu e demu magam bu jigéen may na et sama doom suñu doom bu am ñaari at six mois Ibrahima ma fekkee leen fii ay vingt et une heures mu ne ma ah baal la yow tey guddi nga de ma ne ko gis nga de xam nga Dakar moom soo liggéeyee comme dëkk bi dafa metti am naa moto damay jéem a càccam mu am li ma jënd essence pour su may dem am li ma yóbbaale léegi ma yëkkati seen xaalis yi dépense ma jox ko ma yëkkati dix mille ma ne ko dix mille bi da nga koy garder en attendant comme sage-femme bi dafa la xamaloon fii à Londres mun nga am doom te mun naa dem fii kenn xamul ban heure la lu ma ne ko su lu mu guddi guddi sa biir su commencé métti rek bépp ma man danaa la woo woo sa mbokk yi ngeen jën jël tas ki dem jëm ci hôpital bi man li mu guddi guddi comme yor naa moto danaa jóge fale ma boobu ñu fanaan fii jàmm alhamdulilah dara méttiwu quoi ah. bi ma yeewoo moom laa jëkke woo samedi bi ci samedi mu nekkul ah le naa bu yàgg loolu yëpp téléphone bi dafa enregistré mu man lépp li ma wax moom téléphone bi da doon naa bu yàgg maa ngi nii ci camp militaire yi comme foofu la doon moom ay mbokkam mbokkam ñoo foran fo militaire yi seen toni ma ne ko dara métti moom mu ma noonu ay saan dara métti moom mu yënd foofu ba 18 heures ci ay doomam duñu ci ay mbokkam duñu wax sangu sangu doomam ñibbi sama kër bu mu ñibbi sa fi ay 18 heures 30 laa ko woo téléphone man ko foo nekkee mu ne ma maa ngi sama kër yëpp téléphone bi arrêté na ko man ko esaan dara méttiwuma mu ne ma noo esaan ni sama moo commencé métti faatu laa xaar faatu su ñëwee mooy mag mooy rakkam bu jigéen nee na moom dafa dem jëndi cere moom la xaar su ñëwee mu bàyyi ko Ibrahima mu dem ci hôpital bi ma ne ko noo sooy dem ci hôpital bi bul dem yow kese sooy dem wowal sa mag nga ànd ak moom mari maringom amatuma ni moom maringom mu ne ma maringom de woo naa ko ba sonn jëluma mooy magam bu jigéen ma ne ko non kese parce que man ma nekkoon fii sama jabar balaa mu dem hôpital ma ànd ak moom comme maa ngi jam ñaay dafa dafa sori mu ne ko bul dem yow kese mu ne ma noo instant ni biir bi méttiwul noonu kii taxaw ni sax kooku buggoon la ko yóbbu fekk koo fekkee kii dafa ëmb mu ne yow instant ni mu doon comme dafa dangaa ëmb damay jël tas ki su ma eggee foofu lu mun taxawee danaa lijjanti Marie Ngom numéro am ma woo ko mu fekk ma ci hôpital bi bi mu jëlee taski fii la jëlee taski rak buntu kii gi fii la jëlee taski rakam mu ngi taxaw doomu magam mu ngi taxaw ak kii mu ngi taxaw kii kii ni mu ngi ñëw o oh, mu ngi taxaw bi mu jëlee taski tamit maa ngi wax ma téléphone bii de maa ngi wax ak moom ba mu ne ma léegi de tee nga tuuti appel nga woote waat fekkee egg ci hôpital bi ma coupé ko ma woo magam marem ma ne ko ah Fatima tali biir bi dafa yëngatu mu ngi ñëw dem ci hôpital bi marem mu ne ma woolam Marie Ngom ma ne ko Marie Ngom man amatuma numéro am parce que Mbàkke nee na woo ko jotu ko yaa ngi dégg léegi eh, Marème moo woo Maringom Maringom woo Astu Astu Joon Astu nee na balaa muy dem ci hôpital bi sax woo na Mbàkke ba Mbàkke jël ko mu ne ko Mbàkke foo nekkee Mbàkke mu ne maa ngi ci hôpital bi tudd turu hôpital bi mu ne ko yow lan moo lay metti Mbàkke mu ne sama biir bi mooy metti maa ngi ci biir hôpital bi xam nga foofu su fekkoon sama jabar bi mu bi mu bi mu dem yóbbu na blessure moom mënoon na ko wax parce que sama jabar seenaa moom depuis 2019 musuma nobbu dara sama jabar tey même su ma ko woon téléphone su fekkee dafa xëy bu xoosu baaram bi xoosu nii dama wax carrément baal man tey damaa xoosu te kooku mënul yóbbu gaañu gaañu xamante ne gaañu gaañu mën na ko yóbbu mën na ko rey te ko wax sama jabar wax naa moom téléphone ba mu dugg ci biir bi mu ne ma dugg naa ci biir hôpital bi gisuma kenn ay 20 heures samedi la 4 ma ne ko dugg ci hôpital gisoo kenn affaire bi nag ma commencé jaxasoo moo ay magam magam bi mu ne ma noo astu dem na foofu après ma woote sama jabar bi ma woote sama jabar sage-femme bi moo ma jël mu xamal ma yow yaa jëkkër Mbàkke ma ne ko waaw mu ne ma sa jabar day matu orchestre yëpp mu ngi see man mun naa leen tegal audio yëpp par benn benn mu ne ma yow yaa jëkkër Mbàkke ma ne ko waaw mu ne ma sa jabar day matu mënul wax téléphone damay fay téléphone am bi ma ne ko ah bon comme dafa bëgg am doom man xaw ma dafa ma wax biiram bi mu metti mu ne ma noo xool leen ko day matu mu ngi ci waat mu ngi ci kaw table bi maa ngi koy xool xam nga foofu su fekkoon sama jabar bi mu dem yóbbu na ba leesir moom mënoon na ma ko wax wax naa moom ñaari yoon moom saat bi beneen arrêté bi sax ma ne ko yow lan la nga mu ne man sage-femme la waa hôpital Mamadou Diop ndekete sama jabar ci biir hôpital bi foofu la daanu dafa daanu foofu wala ñun ñu daaneel ko man loolu laa mën a jàpp ba keroog am li may leer ci biir hôpital bi foofu la daanu wala ñun ñu daaneel ko parce que sama jabar bi mu génne aduna fekk naa ci moom bopp bi e kanam bi yëpp dafa toj ba gémmiñ bi toj gémmiñ bi nii toj bi dafa toj gis naa ko tiim naa sama soxna bi ma eggee man leen mais yéen kanaa kii dafa daanu sage-femme bi mu ne ma noonu sa jabar daanul bi mu ñëw dafa indaale blessure bi ma koy laaj sama jabar papam bu ndaw mu ngi taxaw kooku ñu ñëw duggandoo ci biir hôpital bi parce que sama soxna bi mu génnee aduna sage-femme bi ñoom dañoo profité jéem ma duggal dañoo bëggoon ma ñàkk sama jabar ñàkk sama doom ñu créé ma problème. donc kon sa jabar ak doom ji dañu mujj gaañ. ñoom mujj gaañ ñoom ñaar yëpp. doom bu góor la parce que ñu ko defal autopsie ñoo génnee xale bi yaa ngi dégg léegi soxna si bi mu génnee aduna. sage-femme bi maa ngi jógee jam ñaar di ñëw diggante barñe eh, kii mu woo ma téléphone mu ne ma sa ko sama jabar mu ne ma waaw ma ne ko sama jabar mu ne ma waaw ma la dee wala sama moto. kon diggante bi mu la woowee bi nga ko woowee ma dafay accoucher ak la woowee ne la na ñaata minute que man xam nga man la jàpp man li ma jàpp li ma li ma li ma waxaa moom ci téléphone soxna si moom mu ne ma sa jabar dee matu mënul wax téléphone maa ngi koy xool fekke la soxna si faatu man loolu laa jàpp ba keroo may am li may leer sama bopp man loolu laa jàpp parce que bi ma bi ma waxaa mu même pas dix minutes mu woo ma ma ma ne ko léegi ana bébé doom dafa deewaale biir bi soxna si man ku gëm yàlla la doom bi doom bi matoon la parce que ñi ko ñi ko génne mu ne ma sa doom bi mënoon na mocc sa doom bi am na 4 kilos à liibar doom bu góor si ñoom lu ñu wax journal bi mu ngi ne journal moo ko bindi sage-femme bi ñoom lu ñu wax ñoom sax nangu na sama jabar bi mu dem foofu gisuñu gisuñu moom gaañu gaañu gisuñu moom gaañu gaañu après mu ne ba mu yàgg ñu commencé gis bi mu ngi nàcc loolu est-ce que xel nangu law yow soxna si ñëw yaa tiim nga ne amul gaañ yaa ko tiim dafa bëgg am doom mu ngi mu ngi day matu da ngay fay téléphone bi su fekkoon soxna si bi muy ñëw indi la gaañu gaañu xanaa mënu nga wàcc jëkkëram wala balaa nga koy laal nga woo police ah dafa am ko ñëw fii bugg a si dafa indi gaañu gaañu mënoo ko bàyyi waroo ko bàyyi ba mu génnee àdduna nga soog woo police parce que police moom a jiitu foofu. mais comment nan sa jabar nan la jógee fii jël taxi dem ba si hôpital bi te yow yaa ngi wax ak moom yëpp cours de route mu dem war a am doom sage-femme ne mu ngi am doom diggante bi fan la si daanoo fan la si gaañoo ba wala tax mu ñàkk bakkanam mook doom bi yëpp. soxna si billaahi sama jabar mu ngi si maa ci fel billaahi sama jabar ci biir hôpital bi la daan billaahi lazi la ilaha illa huwa parce que sama jabar yuuku na ci biir hôpital bi la mu indi yuuku yuuku yi si joon nee na sama jabar yuuku na ci biir hôpital bi asu moom wax sax ci kii bi fii enquête bi gis naa PV bi nee na sa nangu na sama jabar yuuku na léegi la moo indi yuuku yuuku sama jabar kii moo naru nekk cinquième doomam su bu doom be premier doomam sax ñu ne ah mënul am doom cinquième doomam bàyyi na fii ñeenti banti bàyyi fii yaayam bàyyi fii mbokkam yaa ngi dégg kër yaayam tey moom moo yoroon kër gi billaay bu mu génnee àdduna ñu bari dañoo accueillir yaayam torku na parce que liggéey bu muy liggéey ni moo tabaxal yaayam bâtiment ay mbokkam yi ñu ngi fii papam mu ngi ñëw mu ngi ñëw mun na ko mun na ko mun na ko seedeel moo tabaxal yaayam bâtiment bâtiment boobu sax bi ma dem barke dem laa ñibbi si foofu damaa dem seedi sama doom bâtiment boobu instant ni comme bu muy génnee aduna bâtiment bi jotul am courant maa ngi fee pour ñu indi foofu courant yaay ji instant ni lépp li mu lépp li mu doon jàppale yaayam et doomam ay rakkam loolu tey man maa man maa koy def. mais bu ñu taxawee fii nga xamante ne hôpital bi kon yow dafa am lu louche ci yow. lépp ma xam naa parce que ah, eh, xamal lu tax ma porte plainte li ma fekkee sama jabar génn àdduna fekk naa ci moom gaañu gaañu bopp bi ak kanam bi yëpp dafa toj ak gémmiñ bi ma laaj saay fam bi xanaa ki dafa daanu mu ne ma noo kii bi muñu dafa indaal bi leesir ma ne ko ah moom def bi muñu dafa indaal moom xamul woon téléphone bi arrêté na ko xamul woon xamul woon téléphone soona si moo soona woo xam moom téléphone bi day arrêté te audio yëpp mu ngi naa ko mu kii parce que moo def constat jël na audio yëpp dugal ko ci clé boo la bi dossier mu ngi terminal dem naa foofu benn yoon dellu na ma dellu audio yëpp li ma doon sama jabar li ma doon wax sa famille yëpp dew ma wax dana woo waa hôpital bi ëpp na ëpp na au moins 15 jours bi ma jógee foofu ba léegi déggaatuma dara foofu ci sori ci affaire justice foofu ci bi la nga yem foofu comme dossier bi mu ngi ci tribunal foofu ab sama avocat dana ci do avocat bi may bi may jël nii kooku sax dafa may jàppale am na avocat bi ma jëloon ma jox ko xaalis comme sama doole sama doole demeewul noonu ma jox ko xaale su ma ko woowee nii nii dafa ma laajoon trois cent cinquante mille la ma laajoon ma jox ko cinquante mille avance instant ni su ma ko woowee du ma jël ndaa lan jox ma xaale mu des kee moom bi ma ko demee expliqué ko sama kaa mu ma danaa jàppale danaa jàppale te man nii instant nii nii sama jabar ki génn nii seen kër yaayam wallaahi ginnaaw yàlla mun naa la wax maa ko yor ginnaaw yàlla parce que moom moo moom moo def moom moo moom moo yoroon soo yoroon kër gi su ma leen bàyyee nii rek wallaahi du du baax léegi moom euh, doon na def ay visitam yëpp ba nga xamante ne dara desulul mu mucc mais problème bi mooy fii mu demee di accoucher foofu si diggante bi yow da nga xamul dafa daanu wala dañ ne moom moo daaneel boppa man ñaar ñaar laa mën a jàpp dafa daanu si ñoom ci biir salle accouchement bi parce que dem na ba dugg ci biir salle accouchement bi dara dalu ko même xale bu jigéen bi mu fekkoon ko jour boobu si am doom sax moom nee na sama jabar bi mu dugg ci biir salle accouchement bi dara dalu ko mu ngi si jàmm mu ngi ñëw saabante sage femme bi sama jabar ku dafa neexoon deret amuloo benn problème loo ko wax mu ree yaa ngi dégg diggante bi sama jabar lu tax mu yuuku ci biir salle accouchement bi parce que soxna si dafa yuuku asu dafa bëggoon dugg ñu ne absu yow noo mënoo dugg parce que dafa dañoo am urgence dafa am ku xaw ma ku daanu kiris xaw ma te man sama jabar musul am beneen feebar sama jabar 2010 loo laa ko ba léegi musuma xam ci moom beneen feebar daawoon na ma jàmbaay bañ bu metti defal na visite defal na ñetti écho analyse am yépp ba ñu jox ko rendez-vous lundi ñu ne ko yow mënoo am doom normal il faut ñu faire la opération lundi jotagul samedi biir bi commencé métti mu dem foofu gis ngeen situation bi doo leen ko opéré wala ngeen jaarale ko ngeen bàyyi loolu soxna si ngeen piqûre soxna xam nga piqûre bu moo jaarul yoon dañoo piqûre dañoo piqûre sama jabar yow dangeen ngeen wax kii mënul am doom normal lu tax ngeen piqûre ko piqûre boobu lépp problème bi fa war a jógee dañoo piqûre sama jabar mu daanu bi mu daanu sama jabar bi mu daanu dafa dopp man gis naa ko bi mu daanu kanam bi la daanu wàllee biir bi dafa dopp gis naa ko parce que lu tax ma la dafa dopp parce que fii dafa toj fii dafa toj bopp bi fii dafa toj seer bi ma jëndaloon doomam bii nii Ibrahima tax bi mu nekkoon liir Ibrahima seer bu weex bi mu dem dafa dafa yóbbaale woon seer bi seer bi la ñu xotti ñu takkee ko boppu soxna si loolu laa fekkee loolu laa fekkee seer bi ci boppu soxna si ak bi yëpp dem mu ngi nacc deret bu bees tak astu da bu ñuy xotti seer bi sax astu daf leen laaj seer bi pour la ne mu ne mën a dafa commencé woon wartinte loolu amul sama jabar commencé woon wartin parce que ma dem naa ba ma tim ko yaa ngi dégg ci jour boobu commissaire moo def constat bi bu muy dem mu yóbbaale téléphone soxna si mun ne ma yow dimanche nga fekk ma commissaire Diopol samedi ma lekkoon lekkat ma ne ko amul benn problème mu ne yóbbu leen néew bi ngeen euh, hôpital sa Pouye bu Grand Yoff ngeen defal ko otos bu ñu demee ñu ne amul place dafa fees sage-femme bi bàyyi foo benn papier ñu ne il faut ñu yóbbu ko hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye waaw ñu yóbbu ko hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye kii mooy paa bi moom mooma luwee kër gi moom moom dina wax moom dina wax yaa ngi dégg léegi bu ñu ko yóbbee hôpital Dalal Jàmm sage-femme bi dafa dugg génne dugg ci biir hôpital bi baa ñu foofu de def na foofu 30 minutes bu mu ñëw bu àndaale ñaari médecin yu góor médecin bi dafa ñëw muur sama jabar kanam bi mun leen mais xanaa yéen kii dafa amoon tension xanaa kii dafa daanu maa ngi taxaw tiim sama jabar de sage-femme bi mu ne ma garaaw arrière arrière ci ginnaaw bëgguma gis sama sama jabar ma ne ko ma arrière man maa damaa sokki sax ki ma àndaloon sama xarit dafa jàpp bopp bi yuuku sama jabar bopp bi ak kanam bi yëpp bi dafa toj médecin bi làmb biir bi xool xool xool mu ne ma mais mun a duggaleen ko ci moor bi morgo bi morgo bi après laa doog a confirmé ñàkk naa sama jabar ñàkk naa sama doom billaahi ma dem fay ñu duwaa ko ci morgo bi ñu ne londi ma dem jël sama koor ñu indi ko ci hôpital Idrissa Pouye ñu defal ko otos samedi keroog quatre heures laa yeew fi ma dem keroog foofu laa jullee fajar bi ma dem julli ba huit ñu ubbi bu ñu ubbee ñu jox ma sama koor ma fay ambulance ñu yóbbu ko ñu ko defal orosisa bi ma dugg ñu ne ma dañoo muur sama jabar kanam bi rek ñu ne non mais kii wala ma jëkkër ji ñu woo ma ba may dugg heureusement tamit sama jabar papa mu ndaw mu ànd ak moom mu ne ma yow sa soxna lan la xanaa kii dafa xeex xanaa kii dafa daanu sa jabar li mu dee métti na de bopp bi écran bi dama ne ko man leen sem bi man sama jabar lii laa ko fekk wax naa moom téléphone ba mu dugg ci biir hôpital bi yaa ngi dégg ma ne ko wax naa sage femme bi ba mu ne ma sa jabar day am doom munul mu eh, mu ngi am doom damay fay téléphone am bi nii laa ko fekk carrément waaj ji mu ne ma lépp waa hôpital bi la billaahi loolu la ma wax sama jabar papa mu ndaw mu ngi taxaw mu ne ma lépp waa hôpital bi lépp waa hôpital bi léegi nag dëkk bi fi Sénégal dañu war a weesu jigéen di dem hôpital di am doom di gaañu ci biir hôpital te affaire yi ñàkk a fayda te waa sage femme bi Sénégal fii la war a bàyyi waa sage-femme bi ñu amee problème ay police police tee leen ñu génn ñu marché ba ñu bàyyi la gis nga ñuy dee ñooñu ci ñooñu ci ñu la bokk parce que tey ku dee fii tey bàyyi na ma bàyyi ay jabaram eh, bàyyi ay doom bàyyi ay doomam bàyyi ay yaayam bàyyi seen kër billaahi loolu dafa métti dafa métti sage-femme ba léegi ñoom ñuy continuer liggéey seen liggéey dañu yàq sama àdduna pa bi mun na témoigner sama jabar moo nekkoon kan sama jabar dafa nekku nekkoon nit nit ku baax parce que maa ko tuubuloo bi ma ko takkee maa ko tuubuloo loolu moo tax ñu tuddee ko Fatimata Bintu Mbàkke ñaar tuddoo maa ko tuubuloo te maa ngi ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm yàlla xare ko aljanna en tout moom ñàkk naa sona bu baax wax dëgg yàlla moom. léegi nag lan ngay xaar comme yóbbu nga yëfi si yoon ndax da nga jàpp ne dee gi dafa louche ndax euh, yow da nga jàpp ne peut-être niñ ko tege si taal bi mën nañ ko niñ ko piqûre noonu mu daanu dëpp moo tax kanam gi toj ak yooyu yëpp mu mujj ñàkk ba kanam. foofu la daanu ci biir hôpital bi foofu la daanu foofu la daanu lu tax mu yóbbu ci biir hôpital bi lépp foofu la xewee foofu la daanu comme porte man duma étranger ci réew mi fii laa juddoo fii la fii la juddoon ci réew mi woonu naa sama justice réew man sénégalais yi xam lan la ñu war a bàyyi soo amee problème nga bugg a portefeuille ñu ne bàyyi du mujjee fenn daanaka amoo doole amoo xaalis parce que yenn saa yi da ngay dem wallahi azimu nit dafa may romb mun ma yow bi fu mu sa jabar bi ma ne ko ba léegi nii maa ngi daw ñu ne ma du mujjee fenn parce que amoo doole amoo xaalis tey boo nekkoon doomu ministre wala nga am xaalis instant ni sa kaa bi xam nga sa jabar ban condition la génne àdduna xam nga loolu nekkul. depuis le 4 mars maa ngi daw ba léegi ni xaw ma sama jabar ji ban condition la gis nga yoon ku am xaalis ku amul xaalis yoon soo amee problème amoo droit fajal sa bopp xam nga su ma jéemoo fajal sama bopp police dafa may jàpp wala gendarmerie ñëw jàpp ma soo amee problème nga dem porter plainte ñoo war nañu taxaw ba ñu xam problème bi lan la parce que ñu ngi ci dëkk yoon quand bu am police am gendarmerie am juge am procureur amoo droit fajal sa bopp affaire bi métti na soo la si ba léegi ni xamaguma sama jabar ji bala ko ni soo la génne àdduna maa ngi daw rek maa ngi dawra su ma nekkee fii au mois des mois ma dem seeti sama doom parce que il faut ma dem seeti sama doom sama doom instant nii mun naa mu ngi mun naa jël indi ko ci mu nekkee sama awa man tamit maamam def ma ñaan mu ma su ma sañoon nga bàyyi ko ba ci kanam ma koy xoolee sama doom demee su ma nekkee fii des mois il faut mu dem daw ma xoolee sama doom ma ñëw liggéey su mu amee furaatu parce que damay fay fii luwaas yaa mu ngi Fatick yaa ngi dégg paa bi ma luwee kër gi mu ngi nii na xam na man yàgg naa fi am def naa fi sama jabar musul am fi kenn problème sama jabar bi mu dem bi mu jël ci hôpital bi fii la jëlee tas gi fii la jëlee tas gi ñoom ñu ngi taxaw fii xam nañu sama jabar jour boobu ni mu yónnee ci hôpital bi kii ci camp bi xam nañu sama jabar saa xoosuwul soxna si bi muy faatu bopp bi kanam bi dafa toj dafa toj ba mokkul dafa toj ba mokkul laa la wax parce man tiim naa ko ba léegi nii su ma tëddee guddi nii gis nga léegi nii dama ko tëjoon laajal paa bi mu ngi nii deux mois fanaan ma fi dama doon fanaan ci chantier am na benn jour dafa benn guddi dafa ma feeñ mu ne ma yow lu tax ngay fanaan ci chantier bi tëj néeg bi doo fanaan doo dem fanaan foofu man maa ngi si jàmm ñaanal ma rek billaay loolu la ma ko waxee ci sama damaa damaa jóg guddi ma dem jàpp julli après laa commencé fanaan fii nii billaay paa bi mu ngi du bàyyi ma fet yaa ngi dégg affaire bi métti na suuna si billaay donc yenn saa yi sax man damay gis nga hôpital may liggéey hôpital bi sori wante wuñu de sama liggéey mu boobu bul dem côté boobu parce que wóorul mën nga dem foofu xoola nga def ko naka sunu noonu nga indi sama problème parce que tamit rafetul nga gis sa jabar condition bi mu génnee aduna ñoo la ñi ko rey ba léegi ñuy continuer liggéey seen liggéey te yaa ngi romante ñoom xam nga tamit loolu loolu neexul vraiment bi nga ñëwee police nga fa fekk accouchement euh, bu bu mujj ñàkk bakkanam lan la fa police ut si kan ñan ñoo woo. ñoo woo police parce que ñoom nangu nañu ñoo woo police enquête bi mu enquête bi ñoom PV bi gis naa ko ñoom ñu ne nangu nañu ñoo woo police solos bu mu génnee àdduna dañoo woo seen paye seen patron seen patron bi ñoo leen jox ndigal pour ñu woo police man foofu laa ma ñëw ci hôpital bi fekk na sama jabar faatu na fekk na sama soxna génn na àdduna balaa si faatu na. léegi police bi mu ñëw lan la que man bi ma ñëw la fekkee police bi may eggee paa bii du bàyyi ma fenn damaa yegg rek sage-femme bi ñëw génn mu ne ma yow. diw mu ñu ne ma kii moo nekkoon jëkkëram fa sage femme bi ñëw mu ne ma yow sa jabar lan la xanaa dafa xeex bi muy ñëw dafa xeex kii paa bi moo leen njëkk waa kii jëkkëram jabaram musul amaa kenn problème parce que man kii kii di ñëw nii sama nijaay la man la dem mais parce que man xaw ma xaw ma sax la moo xew man sama jabar dee laa xam dee na génn na aduna xaw ma ci bonne condition parce que man gisuma gisuma soxna si dama dugg si hôpital bi sage femme bi ñëw bëgg a profité di ma laaj xanaa yow sa jabar def bi muy ñëw dafa xeex paa bi mu ne leen kii musul ama ak kenn problème musul ama ak kenn problème man leen ko soxna si man sama jabar amul ak kenn problème bi ma duggee ci biir ma gis sama jabar gaañu gaañu yi laa doog a comprendre comme soxna si soo gisee muy profito pour jéem dugal nit ñi wala ku jéem a dugal parce que sama jabar bi mu génnee àdduna sa absu ki nga ne moo jiitu ci hôpital bi dem na ba mu fekkee sama jabar ñu ngi ko teral ci hôpital bi fekkee daanu bi xewul moom dina ma gis sama jabar soxna si bi mu faatu sage-femme bi woo ma man ma woo astu ma ne ko ah saay fam bi de woona ma mu ne ma faat faatu na astu mu ne ma noo deewul de mbàkke mu ngi ci biir deewul de ma ne ko noonu saay fam bi woona ma mu ne mbàkke mbàkke génn na àdduna astu mu ne ma deewul ma ne ko noonu dee na parce que man maa ngi ñu jógee bar ñi di ñëw après ñu jéem a jël astu dugal astu seen bureau ñu enquête astu soxna si lan la sëy woon kanaa dafa amoon problème borom këram kanaa daawoon na xeex kanaa dafa xeex bu muy ñëw astu mu la leen kii musul ama jëkkëram problème kii sàjjul kii tey tey ñu ñoo yendu te démb fanaanoo i jëkkëram te yendu la jëkkëram kii sàjjul jëkkër ji su ko bi xaal bi su desee taal moom moom moo la ko mujjee gis xam na ne kon bi muy ñëw amul benn toj toj amul benn waaw ñoo yendu keroog moom asu man keroog yendu ma moom asu mu ne leen kii sàjjur jëkkëram day taal moto am ñëw ba ci buntu kam bi dugg ci kam bi ko foofu ay ay dépense am ginaar wala ay jàpp wala seetaan moo ko téléphone Fatoumata bàyyi na la sa dépense ci taabal bi yow nit yow jabar yow jigéen bi nga takk nga tuubuloo ko tuubuloo ko mu nangul la ko kooku est-ce que kooku doo ko jàpp doo ko doo ko fonk maa ko tuubuloo génne ko ci beneen diine du ko ci diine l'islam kooku doo ko doo ko fonk kooku saa man sax su su su meroon sax damay génne damay sooraale ak kii maa ko loo am na warul saa mer parce que su mer ta day day dem saa xalam génn ci diine loolu yëpp maa ko ma leen su mer saa man damay wàcce sa bopp ma ma koy neexal i soora si génn na aduna lan lu tax ñu woo asu di enquête asu kanaa kii dafa doon xeex ñu woo police kay la ñu war a bàyyi police def enquête police xam na sama jabar daanu fo sama jabar foofu la daanu police yi xam na loolu police moo la gën xam sama jabar ci biir hôpital bi la daanu su fekkoon sama jabar daanu la foofu su ñoom lu ñu bëggoon ma ñàkk sama jabar ñàkk sama doom police ma ñu bari ñu ngi fi ci eh, kaso bi ci erreur ci affaire erreur ñu tuumal tuumal la comme ñoom dañoo am doole ñoom sages-femmes ñu tuumal la ñoom ñu tuumal la police ñoo jàppal te fekk yow defootinoo léegi ana ñu ko doon assisté ñi nga xamante ñoo ko ah, ñu ngi jógee foofu ñoom yëpp seen tur xam naa la parce que journal journal bi ñoo la bind ñoom yëpp mun naa la wax diw et diw loolu sama avocat dafa mu wax du ma tudd tur du ma tudd tur hôpital affaire gis comme papier bi comme dossier bi mu ngi foofu ma ci sori maa ngi ñaan gis maa ngi ñaan suñu procureur général Bakhoum di ñaan suñu suñu président monsieur Macky Sall dañu xam suñu suñu sage-femme yi ñu ngiree suñu doomay waxuma waxuma ñëpp parce que métier boo gis dafa am ñu baax dafa am ñu bon métier boo gis dafa am ñu baax dafa am ñu bon même journaliste dafa am ñu baax dafa am ñu bon en tout cas suñu jigéen ñi suñu rakka yi suñu doom yi ñu ngi dee ci mbir ci hôpital yi ci RL te suñu téyee sage-femme yi un mois deux mois ñu commencé marche ñu bàyyi leen dafa mel ni ñu dee ñooñu duñu ay nit Sénégal war nañu weesu jigéen di dem hôpital di am doom foofu di gaañu ci hôpital war nañu weesu loolu wax dëgg yàlla moom jigéen di dem xoolal xam nga te sama jabar tey su fekkoon fii la bëggoon am doom daanu fii boppam kat boppam bi toj fii man damay am problème parce que dañuy wax jigéen ñi jëkkër ji moo ko bàyyi foofu yóbbuwu ko joo ko xaale bu bugg am doom ci hôpital bi mu daanu foofu ku dem ci biir hôpital ji biir salle accouchement su fekkee foofu la daanu tey tey agressé su la dakkoon ba daw dugg ci police wala dugg gendarmerie da dangay am yaakaar ram nga su fekkee agresseur dafa la dàkk ba dugg nga dugg ci biir police bu fekkee la foofu faal la ci biir police comme yaa comme comme ñun nekkuñ nekkuñ ci sécurité su fekkee soo ku jugga ci hôpital jugga ci ker bu ko dem am doom jëm ci biir hôpital foofu la daanu ci biir hôpital bi foofu lay daanu eh? kii mooy sama nijaay kii bokkoon na sama jabar benn kër. mënuma sax di témoigner nii comme ci ay télé di wax mais nag il fal yu que ma ñëw. pour témoigner ci moom ndax man maa demoon ñaani ko euh, fële ci ginnaaw Fatick euh, xale la boo xam ne dañoo dëkkoon ensemble ci benn kër à Liberté 6 avant muy am jëkkër yàgg naa ko xam mais elle était chrétienne de religion bi ko booy bi di bëgganteeg moom ci la ma euh, ne tonton mu ne ah, mu ma fii de aw ma fi benn kilifa ginnaaw yàlla te waa ji Euh, muy Balde Balde nekk euh, moom dongo daara la dafay jàng alxuraan di ko consommer toujours te man damay bëgg nit kuy topp religion surtout religion musulman ma bëgg ko ci mu ne Mamadou dafay bëggante ak man te vraiment bu ma sañoon du ma dox ay caaxaan ak moom ma ne ko très bien donc man je suis prêt bu fekkee bëgg na la li muy wax dëgg la ci moom na dox fu la man je suis prêt ma dox jàppale leen ci la intervenir moom Mamadou. ne bëgg na ma ne ko man duma dugg ci ay caaxaan parce que xam naa sama bopp je suis kii mu ne ma non tonton bëgg na ñu waxtaane ko yàlla def mu jokkook ay mbokkam ba ñu déggoo ma ànd ak moom dem ak benn euh, nijaayam ki ko jàngal alxuraan ñu dem ba seen dëkk ñaani ji ko ñu may ñu ko ñu retourné ñëw dakaar Euh, nekk en di dund ci benn kër moom it mu am ma yërmande ci moom lool soxna si macha allah di def arts martiaux mais euh, respecté jëkkëram ak ay dëkkandoom ba suñu borom def bi ñu tuxoo mu tuxu si fii loolu moo ñu séparé bon ma xëy un bon jour rek ñu woo ma téléphone ne ma Mbacke day décédé na ma Mbacke décédé na mooy lan ñu ne ma dafa ëmboon jël oto taxi di ñëw ba ci poste de santé Mamadou Diop bi après mu daanu foofu euh, loolu mooy ñàkk bakkanam ma ne non c'est pas possible euh, ci la ma doog woo moom mii euh, ne ma police mi ngi foofu ma ne ko police mu ne waa mu ne police ci hôpital ma ne kan moo woo yow mu ne ma non waa hôpital bi ñoo woo police ma ne ko kon c'est grave ñu top circuit bi ndekete moom bi ñu ñëwee après man dégg naa ay témoignages parce que. Euh, gardien hôpital bi moom nee na bi fi femme bi di ñëw wàcc na ci taxi bi wax ak moom maa ngi dégg ay aussi ay audio ci téléphone am muy wax ak femme bi parce que téléphone am day enregistré muy wax ak femme bi femme bi naan ko egsi naa maa ngi ci hôpital bi mu ne ko waaye kenn nekku fi mu ne ko comment kenn nekku fi ci lu coupé ak moom téléphone après ñoom maringom benn euh, magam ñoom ñoo ma informé sax ne ma moom après bi mu ñëwee Mbacké dafa ñëw bi mu ñëwee xaw a sonn noonu ñu accueillir ko bon bi mu ñëwee ci salle bi après xam naa ñàkkul na ñàkkul négligence a ngi ci moom. parce que jigéen bu toll di matu maa ngi dégg aussi sage-femme bi di ko wax naan ko dañuy fay téléphone am parce que dafay matu loolu maa ngi dégg sage-femme bi di ko wax ci kii bi donc ce qui veut dire que kuy matu te moom matuwul parce que man bi ma ko gisee CTO fële euh, c'était bizarre. kanam gi toj donc euh, doy na waar dañu mujj césarienne xotti biir bi pour génnee bébé bi dafa affaire bu doy waar la on daal dafa nekk affaire boo xam ne boo koy wax ci choquant dem na ba pare bon bu ni mu ciy toppee nii aussi du ñàkk ba pare ñànki mais dafa bëgg a xam lan la jabaram génne àddina ci condition yu doy waar yu mel nii loolu la bëgg a xam comme ni ci loxo justice na man damay ñaan rek justice ñu jàppale ko ci parce que sinon dafa waroon moment yi mu toll dafa waroon am un psychologue ku koy topp parce que dafay dem ba moom ci boppam dafay mel ni day traumatisé wu ndax maa ngi gis muy génn di def ay audio di kii dama ne ko moom Momadou dal ndax dafa metti man ñàkk naa en 2003 sama soxna ci accident gaz bu ñu accidenté bon mi ngi nekkoon en état. xamoon na xam naa ni muy méttee nga ñàkk sa jabar ci euh, circonstance yu mel ni dafa metti dafa metti man j'étais demoon naa ba pare moom mi bu amul suivi mën na jóg gis ñi nga xam ne ni ñoom ñoo ñoom la cause bi ñëwee ci seen loxo bu justice réagirul dina am nu mu jëfe ci seen diggante ñoom te bu boobaa day nekk loo xam ne nii ndax fii Sénégal xamuñu fayantoo da ngay bàyyi justice mu def loxo moo tax nag ma ñëw pour intervenir di ñaan ci haute autorité yi nga xam ne ni ñoom ñoo ŋànk justice bi ñu jàppale ko mu xam circonstances yi soxnaam génne àddina loolu moo tax ma ñëw pour euh, euh, réagir ni ci ay jox sànni ci ay kàddu waaye yu mënul ñàkk. voilà mbokki téléspectateurs yi dégg li nga xamante ne moo xew fii si Liberté 6 muy loo xamante ne nag lu doy waar lool lool lool ndax dégg ngeen borom këram bi nga xamante ne mooy Mamadou Balde ni mu ko expliqué mu nekk fee boo xamante ne cas bi moom non foo ko natt rek si méttiwaay weesu na ndax nga waxtaan ak sa soxna ba mu àgg hôpital ne la maa ngi nii maa ngi dugg maa ngi yéeg nga jékki-jékki woote ñu ne la mu ngi matu même pas 10 minutes ñu woowaat sa soxna dafa ñàkk bakkanam loolu ku mu choqué wul tamit euh, ma xam ne doo nit mu nekk loo xamante ne ñaari bakken la ndekete moom soxna si ak doom ji nga xamante moom moo waroon juddu muy ku góor ñoom ñaar ñëpp ñu mujj ñàkk bakkanam waaye dégg nga ni mu ko expliqué ni noonu la ñàkkee bakkanam kanam gi bi mu tam gis na kanam gi tojit yi nga xamante ne moo si nekk mu nekk loo xamante ne ni doy na waar lool lool yaa ngi si loxol yoon ñoom ñu ngi koy topp waaye ñun tam nañ ko topp ñu xool fan la wànnante di mujjee ki gëtam parce que comme moom bi muy ñëw dafa fekk police foofu ñu def ay enquête ba tey mu yóbbu ko si ci yoon mu nekk tribunal donc dañuy ñaan yàlla rek yoon def liggéeyam ba yëf yi nga xamante ne mooy mbirum Mbacke Ndiaye mi leer bu fekkee moo naturel la ñu xam bu ne dafa daanu ñu xam bu fekkante ne accidentellement la itam ñu xam parce que lu ci mënti doon rek àpp ba jot na mais dem li ñuy faral di ngi massaw bu baax a moom Mamadou Balde di ñaan rek yëf yi ñu topp la ndax euh, xam nga ne 4 mars ba ñu ngi ci juin bi mu nekk loo xam ne ñaa ngi ci topp di daw amoo benn résultat yaakaar naa day doon loo xam ne du doy waar loolu la ndax massa fejul góom mais sedd na xol kon yal yàlla niital li nga xamante ne moom moo dal soxnaam soosu ak doomam jooj ñàkk seen bakket rendez-vous incha allah mardi lay doonaat 15 14h30 si biir 7TV télé bi ñu nuru ba nopp ñu dajal di jaajëfal paaloo bi yoroon oto bi waaye Cheikh moom itam mi si caméra bi jërë jëf